pouvoir xam ne président assemblée nationale la ñu def loolu quand kon dañu bëgg a avancer kon d'accord naa ne débat bi li ci xew ëpp na mais comme président bi liñ ko proposer man ak Pape Diop pour ñu suspendre débat bi pour waxtaan ba ñu continuer avec sérénité débat bi nangu na ko maa ngi féliciter di remercier le président Pape Diop gis nga booba tey maa ngi concerté wu ak Madické ñoom ak groupe yi pour ñu dem ci calme sérénité bu ñu ku nekk bu ñu liste nga wax sa ndax am lu bon bon juróomi minute yoo xam li nga bëgg wax ko wax télévision yi jàllale ko bu consulter l'assemblée bu amee ku am amendement jàpp 1 pour cent dafa bari mu wax li mais li nga xam ne kenn mënu négocier te duñ ko nangu mukk parrainage par la force dañ parce que nit koo xam ne amoo 0,5

ñu ko doon appliqué indépendant yi dañ ni Macky Sall même mi président bu bëggee représenter wu day am parrainage valable pour parti politique yëpp ak indépendant yëpp loolu fu mu andee coow ku yaakaar ne am nga kay wax dëgg yàlla xam bu candidat yi wàññi ko yow da nga mëna wax juróomi minute bés bu ne ci radio yeeg télévision ndax 2 minutes lañ doon wax ndax 47 te buñ bayé système bi dañu dem 100 candidats kenn du xam kuy ki ak ki kii mais bëre làmb sax dafa am poids léger poids moyen ak poids lourd kon loolu rek mooy carrière loolu mooy coow li mais defe naa ne danañ reprendre débat bi ak sérénité. waaye ñoom ñi ngi commencé di ndaw.